salaamaaleykum sumay mbokk Sénégal ñi ci réew mi ak ñi nekk bitim réew di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam tey jii su doon seen sago su doon suma sago tamit président Diomaye Faye moo jàkkaarloo ak yéen def déclaration wax ak yéen wante mënu ko def te bis bu mu ko bëggoon defee aussi yónnee ma ci yéen ma dem ba ci RTS ñu bañ ko jàllale

kenn ku nekk ci yéen na jàpp boppam ni moom mooy Ousmane Sonko nee na ma kontaan na ci Sénégal Sénégal wane na ni jëmmam du moom ngeen jiital bu jëmmu président Ousmane Sonko ngeen jiital wante li ngeen jiital mooy askan bi mooy projet bi mooy devenir u Sénégal moom ngeen ormal muy ñaan xale yi mag ñi jigéen ñi fépp foo leen mën a nekk ci commune yi ci région bu nekk ci département bu nekk ci diaspora bi ngeen Ousmane Sonko campagne pour centimètre carré par centimètre carré seconde par seconde ngeen wax porter projet bi ci kër yi ci yi ci place pour battre campagne présenter projet du Sénégalais xelam prison yalla tey le président Ousmane Sonko mu nek prison wante li ñu leen meunal ñom seen bop sax suñ fi téewon xeyna duñ ko mëna def duñu def liggéey bo xamni sénégalais yeen def ngeen ko da ngeen woné grandeur du peuple sénégalais da ngeen woné la maturité du peuple sénégalais da ngeen woné ni en fait dafa am ay valeurs yo xamni mom moy marqué le Sénégal ce sont les signes distinctifs de ce pays là et sen jàmbarte sen ngóora sen courage sen dignité sen ngor taxna tay ji Sénégal retrouver diam Sénégal renouer avec tradition tradition bo xamni moy paix tradition bo xamni mom moy démocratie lenn lenn lenn joxul courage conseil constitutionnel ludul sen taxaway lenn joxul courage yenn góor ñi ak lenn jigéen ñi yenn institution yi lu sen courage grâce à vous le peuple sénégalais Sénégal min ci yoon joo xamni mom mo doon ji mu xam le 24 accent seen loyauté accent engagement ak loo peuple sénégalais le peuple africain à toute l'humanité le 24 di une démonstration pour nous, euh, parce que nous avons une chance de voir le fait que mon président Diomaye n'est dans les liens de la détention de façon arbitraire mais malgré ça

lu exceptionnel la c'est vraiment euh, l'exception sénégalaise l'exception de la nation sénégalaise l'exception de la démocratie sénégalaise l'exception du peuple sénégalais di len jaajëfal di len sante di geureum di len baalu ak yalla na ramadan gi jaar ci jàmm lepp lo xamni ne sun suñu yalla defal ñuko ko lo xamni ragal nañ ko yalla musul ñu ci wa rahmatullahi wa barakatuh